ñuy dem euh, euh, ki nga euh, fekk ki nga xam ni moo di Maymuna Pape de la teel a dugal te nuyoo guma la xam nga mënoon na la bàyyi nga puudaru defar say affaire ak yooyu noonu mais comme Pape dafa ngéwéle amul benn problème. nee na li muy def dafa artistique waaye balaa artistique xaa di nga bàyyi ba ma ne Maymuna am nañu Maymuna ngi. amul. nee na tubaab bi nii la ñuy liggéeyee tubaab bi liggéeyewuñu nii yaa yow daal yaay jéem a aaral nii sa aaral bii nii ñu jékki-jékki rek di seetaan télé jékki-jékki gis Maymuna te kenn annoncé wul Maymuna c'est artistique ah. ah. man kat damaa waaru man. <laughs> TFM da nga fi eh, di baaraam dix baaraam boo fi defee at am camion baaraam. Ah, man musuma gis lii ah. <laughs> xaar na la bàyyi sax ma sargal la tatagal la on va retrouver Maïmouna Gaye Bambalo elle est en train de préparer le petit déjeuner pour son mari je lui laisse le temps de de de lui servir le café après elle va me rejoindre on va parler de droit et d'économie xam nga ñu sargal la sargal yooyu ñu lay sargal mais mu jékki-jékki rek ne la fang ci télé bi nii. waaw ba dégg ba li ngay wax daa mel ni Pape Samba nga faral allez a maa ngi lay nuyu et très ravi de retrouver chez toi gërëm la ci toog bi nga toog sa kër euh, comme ni ñu koy digalee euh, sénégalais yëpp alors mesures yi nga xam ne jël nañ ko bëri na ci wàllu droit ak ci wàllu économie mais d'abord ci wàllu économie euh, est-ce que mën nga ñëwaat ci point yu am solo yi nga xamante ni mënees nañu ko jàpp ci mesures yi par rapport ak wàllu koom gi parce que defe naa crise bi gën a metti te coronavirus bi indi ko mooy crise économique Maymouna chronique effectivement Pape Cheikh maa ngi lay di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp euh, c'est avec un très grand plaisir que je te retrouve comme tous les matins euh, comme ni nga ko waxee on va parler des mesures économiques yi nga xamante ni moom moo fi jot am en plus de mesures yi nga xamante ni euh, amoon nañ ko semaine yi passé donc mun nañ si jàpp déjà euh, chef de l'État li mu ñëwaat wax ko mooy mesures yi nga xamante ni dafa laale salariés yi parce que mu ngi expliquer ni que salariés yi Euh, kenn mënatu leen dàkk kenn mënul leen dàkk maanaam si période bi nga xamante ne ñu ngi nekk si période de crise euh, muy euh, bi ñu jàmm tàmbalee couvre-feu bi ba tey donc benn motif de licenciement rek la ñu permettre Pape Cheikh muy motif bi nga xamante ni moom mooy faute lourde mais lu jëm si ay motif économique rek yeneen yoo xamante ni dafay laal ay koom-koom mënatuñ si dàkk nit léegi aussi ñëw na si beneen mesure essentielle boo xamante ni moom mooy SMIC bi buñ minimum bi nga xamante ni moom la ñu a fay nit waruñu ko yées si maanaam looy fay nit même bu fekkee da ko fay 70 pour cent de son salaire SMIC bi nag Sénégal euh, Pape mu ngi toll si 58 900 francs CFA parce que taux horaire bi mu ngi toll si 300. 33 francs la ñuy nit di fayeeku lu mu yées yées yées si benn heure de travail maintenant dafa am SMIC nag am SMAC SMIC mooy euh, salaire minimum interprofessionnel garanti mais am na aussi salaire minimum agricole garanti mooy ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu si euh, secteur agriculture bi parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni agriculture bi dafa fi dox bu baax a baax a baax a baax donc euh, mu am ñu bëri ñu nekk si secteur bi te xamuñu seen droit wala xamuñu nga xamante ni moom la leen yoon may donc buñ ko mënee résumé mooy nit ki kenn mënul fay kenn lu yées cinquante huit mille neuf cent francs CFA si Sénégal actuellement ak context bi fi mu toll mais su fekkee ni que yaa ngi fayeeku lu ëpp ëpp loolu mënuñu la fay lu yées soixante dix pour cent sa salaire net salaire net nag moom mooy sa salaire brut bu ñu si génnee li nga xamante ni moom mooy cotisation yi parce que cotisation yi Pape Cheikh dafa nekk loo xamante ni dafa essentiel parce que pour kaaraange nit ki la c'est-à-dire nga xamante ni mu ngi liggéey mu mun a prévoir li nga xamante ni mooy cotisation euh, retraite am ak euh, li nga xamante ni moom lay fay ay imposition maladie suñu jógee euh, Pape Cheikh si loolu dañuy jaar directement wax si li nga xamante ni moom mooy euh, mesure yi ñu jël par rapport à l'IPRES parce que xam nañ ni euh, ñu mat ñi maanaam troisième âge dañu nekk secteur bu très très très vulnérable par rapport à cette maladie tax na ñi nga xamante ni ñoo nekk IPRES ñoom anticiper nañ bu baax si paiement li nga xamante ni moom mooy pension de retraite yi pour bañ rek troisième âge bi génn si biti wala war mën a am contact ak yeneen nit donc nañ fay li nga xamante ni moom mooy cotisation yi à partir de service de transfert yi am Sénégal yëpp muy Orange Money Wari ak tous les autres services di leen ko defaral dépôt directement si seen euh, téléphone mais en dehors de cela bu fekkee ñi nga xamante ne amuñu téléphone wala accédé wuñu ci yenn euh, outils yi ñu ngi leen di permettre parce que avant dafa amoon ay points de poste dédiés yoo xamante ni fa lañ daan dem di li ci euh, li nga xamante ni mooy seen pension retraite mais léegi dañ leen a bàyyi euh, fu ñu munti dem si poste bu mu munti nekk dinañ ko fayeeku ensuite ñu ngi waroon def nañ ko bu ñu jàllee toujours si mesures yi ñu ñëw si li nga xamante rapidement rek mooy fonds yi nga xamante dañ ko joxe pour diaspora bi fonds yooyu nag depuis week bi plateforme bi euh, existé na disponible na et opérationnel na ñëpp ñi nga xamante ni ils se par ce virus là te nekk ci diaspora bi mun nañ dem inscrire après consulat bi nga xamante ni moo fa représenté état bi dina jël le pour convoquer leen wala xool nan la ñuy def pour jot ci fonds yooyu ci yooyu aussi mën nañu wax ci li nga xamante ni moom mooy expulsion yi nga xamante ni état bi daf ko suspendre euh, ci période euh, confinement bi wala état d'urgence bi donc ça ne veut que nit ki du fay loyer wala il est pas redevable de son loyer mais même bu fayul loyer pour des motifs quelconques kenn mënu ko génne parce que dañu nekk ci état d'urgence nekk ci état couvre-feu boo xamante ni boo expulse expulsé nit yi peut-être euh, rouage économique bi dispositif bi c'est chamboulé donc mën nga indil nit ci problème mais sa loyer boobu nag da nga ko ameel nit ki da nga ko war a fay donc euh, ñuy wax ñi nga xamante ni nekk nañ dans les conditions de fay loyer ñu fay ko rek parce que état bu la jàppalee aussi day bañ nga vulnérable mais tu restes redevable de ce montant là dinañ wax aussi Pape Cheikh si li nga xamante ni moom mooy euh, euh, loi bi am si plastique yi xam nga récemment au mois de décembre dafa am loi boo xamante dañ ko jëloon pour interdire tout ce qui est distribution de produits à travers ay matières plastiques ak affaire yooyu donc loi boobu nag bi ñu ko mettre en vigueur trois mois après rek bi ñu ko promulguer trois mois après dafa waroon nekk en vigueur mais comme président de la république dafa ni si mesures yi ñuy jël ñu jéem a xool loo xamante ni du impacter secteur privé bi te gis nañ ni que ñooñ di jaay ndox dafa nekk lu bëri ñoo xamante ni si privé bi la nekk ay euh, entreprise sénégalais yu bëri yu sénégalais yu bëri yuy jaay ay sachet d'eau donc mesure dérogation particulière pour sénégalais yi nga xamante ne ñu évoluer ci distribution ak vente de sachet d'eau yi donc ñooñu bien vrai que loi bi day entrer en vigueur à partir de ce 20 avril là mais dootuñu mun a ñooñu duñ duñ ci bokk daal maanaam duñ leen ko interdire parce que dañuy bañ impacter bu baax ci seen activité ba pare tam am na ñu bëri ñoo xamante ni dañuy yëngu ci jaay ndox bi nekk ci tali ak yooyu ñu bañ aussi seen ressources yooyu ñu perdre ko mais sinon yi nga xamante ni loi bi daf dañuy war a arrêter production de plastique euh, leneen li ñu mën a terminer Pape Cheikh moom mooy euh, affaire crédit yi donc euh, actuellement gis nañu que nit yi. Euh, surtout entreprise yi ñu si bëri elles sont impactées donc ministre des finances expliqué na ni ku ci nekk nga nekk entreprise nga amoon euh, crédit bancaire mun nga dem rapproché wu si sa euh, bailleur wala sa banquier nga expliqué ko donc ñoom nag am na ay fonds yoo xamante ni mettre nañ ko à disposition Pape Cheikh pour entreprise boo xamante ni tu arrives à prouver que tu as été impacté ñu mun la defaral crédit bancaire boo xamante ni dafay nekk à un taux de 3,5 pour ba pare Euh, un an différé de paiement mooy bu ñu la joxee crédit bi di nga toog un an avant ngay commencé fay crédit bi donc daal mu nekk euh, loo xamante ni ay mesures la Pape Cheikh yoo xamante ni indi nañ ko euh, fonctionnaire wala privé ñi nga xamante ni dañuy liggéey dans le privé amul aussi ay crédit et que seen yoo fay leen montant yu inférieur à li nga xamante ni moom lañu daan fayee ku ñooñ aussi mën nañ demander ay report d'échéance te état def leen si jàppale et que banque yi jot nañ ay instruction yoo xamante ni elles sont beaucoup plus à l'écoute et dinañ ut ay mesures de conciliation Pape ah, très intéressant en tout cas tu as fait le point de euh, mesures yi nga xamante ni jël nañu ko ci wàllu koom pour euh, protéger euh, citoyens yi ñi ma gën a yërëm nag mooy ñi ma la waxoon keroog ñi nga xam ne ni ñoo amee entreprise yu ndaw yi te defuñu benn déclaration amuñu benn këyit ubbi salon ubbi atelier ubbi boutique business taaba taaba jënd jaay ñooñu seen dara doxatul période bi waaye dimbali leen parce que amul benn kayit peut-être euh, buy wane ni euh, euh, ñu ngi liggéey ci wàllu business. benn avantage la ñuy am parce que Sénégal koo ci gis rek certainement am na compte bancaire te état bi jox na ay instruction euh, organisme financier yi maanaam banque yi ak mutuelle yeeg institution de financement yi pour ñu am le minimum de de compassion bon je même pas compassion mais ñu mun leen jàppale pour ñu mun a euh, def ay report d'échéance donc même bu fekkee mënuñu bénéficier si yenn mesures étatiques yi parce que peut-être ils sont pas formalisés mun nañ bénéficier si yeneen mesures d'accompagnement yi nga xamante ni dañ koy am auprès de la banque wala ñu am ko à travers microfinance yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu inscrire bu Pape voilà en tout cas merci il reste aussi yeneen mesures yoo xamante ni jël nañ ko par rapport ak droit xam naa di nga ko tënk tuuti euh, pour gagner du temps parce que ñeneen ñaa ngi jonkantoog di ma xaar Bijou Ndiaye Mamadou Ndiaye Coro Mbaar Ndiaye ñetti Ndiaye yéen ci benn émission man musuma gis lii on les retrouve dans quelques minutes avec ma petite poule qui m'attend euh, dans sa ou sur sa chaise royale euh, Madeleine y a aussi Sophie ma nga jonkan ca ñam moom it toog di ma xaar am na ay loi yoo xamante ni wala ay mesures yoo xam ne génn na par rapport ak loi loi par exemple à partir de d'aujourd'hui euh, obligatoirement ci yenn bërëb yi dañoo war a takk ay masque euh, euh, entre vingt heures ak six heures du matin personne n'a le droit sortir voilà il y a tellement de mesures yoo xamante ni gouvernement bu Sénégal jël na ko normal parce que feebar bi wala crise sanitaire bi moo toll noonu ek que àddina wërngal képp kenn ku ne par rapport ak sa ay réalité dëkk jël nga ay mesures yu am solo aujourd'hui kenn ci citoyen yi amul droit ab dogal juddu mu ne du ko respecté kenn amu ci droit may mun a. non non kenn mënu ci am droit parce que état déjà moom moo moom moo yore garant de la sécurité publique lépp loo xamante ni dafa yaakaar ni su ko defee dafay préserver nit yi wala dafa leen di mettre dans des conditions yoo xamante ni ils sont. Euh, totalement en sécurité da koy def maintenant moom moo tax mesure bu mu jël rek dafay nekk mesure boo xamante ni da ngay am contrainte par rapport à l'exécution encore plus bu ñu nekkee ci état d'urgence c'est-à-dire boo xamante dañu renforcer doole état renforcer doole ministère yi renforcer enfin ministère de l'intérieur renforcer doole li nga xamante ni moom mooy préfet ak gouverneur yi donc boobu comme ni ma ko waxee woon état de droit day ñëw pousse na la indi état d'urgence état d'urgence day doole et puis may mun a may mun na

CFA normalement loolu euh, da nga ci waroon ñëw lundi euh, prochain mais en tout cas loi bi déjà teg na ay mbir yoo xamante ni ku respecté wul daal mën nañ la garder à vue déféré la tëj la kaso wala daan lay amende. waaw Pape xam nga yow da ngaa tàmm wax naan on parle jamais sans l'avis des experts. moo tax te sax mu jaar ci maître Bamba Cissé mi nga xamante ni avocat à la cour la mu indil ñu ci ay leeral. Ah. et puis euh, des mesures comme dafa nekk euh, situation boo xamante ni euh, exceptionnelle la. Mm. état bi moom sax ci moom mooy jël daan yi nga xam nga avant da doon dañuy day jaar jaar fii jaar fii mais dafay am ay décret yoo xamante ni dafay ñëw en état d'urgence pour renforcer ci li nga xamante ni moom mooy mesures yi ñu def donc ñëpp a ko déggandoo je pense que un mois de prison teg ci ay daan ay ay ay peut-être amende bu fekkee da ko def boo Euh, boo ko defaatee ñu defaat la loo xamante ni moom moo gën a fort je pense que lañ naan xoddeeku balaa ngay lakkale donc les gens peuvent toutes leurs précautions juste rappeler que mesures yooyu déjà pour marché yi la euh, établissement public lieu de lieu de rassemblement yeeg oto yeeg yooyu la maintenant oto particulier je sais pas si ça en fait partie mais pour plus de précaution rek Pape Cheikh ku si nekk da nga yor sa masque wala ni nga koy waxee nga yor sa musoor wala nga yor sa kaala a merci beaucoup Maimouna Gueye Bambalo et euh, à vite. incha allah Pape Cheikh namu naa la trop trop trop. man de pour dire vrai sa sa sa sa sa pañe rek man say orange say orange ak say say banana. <laughs> say orange ak na ragal xam nga ragal donc bi affaire yi ñëwee ma a ragal daal di wàññi activité bi et tout. tapet nga rek tapet nga rek. <laughs> bactérien di pompe saa yeeg léegi léegi sa pañe fekk si la incha allah. souci kontaan naa merci et euh, bonne journée Maïmouna Gueye Bambalo on va retrouver